billahi min alsheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa salla allahu wa sallam ala nabihi alkarim wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyuwaat baax a baax tey amaan mbégte bu baax ak contentement àndaat ak yéen fii ci Rafah TV ci suñu émission yi nga xam ne dooroon nañ ko ak yéen ci seen émission bii tudd xamle xamle comme ni ñu ko waxee woon rek émission la boo xam ne jamono ju nekk dañu xool li nga xam ne mooy actualité fi lañ toll ci jamono ñu jooyal fa sunu waxtaan jamono jotoon nañu ubbi ay tomb yu bari wala jotoon nañu ay tomb yoo xam ne dañoo fas yéene waxtaan ci waaye nag euh, comme niñ ko waxee woon rek jamono ju nekk dañu xool la nga xam ne moo gën a fës dina a aajoo ñu wax ci ñu wax ci te jamono ji kenn ku nekk ci ñun xam na ni li nga xam ne mooy actualité te xew lool mooy tawat joo xam ne daanaka xaw naa raafal dëkk yu bëree bëri ci àdduna laal leen ba daanaka kenn ku nekk mi ngi ci wax loolu nag waral ñu war cee mën a wax as tuut donte waxtu wi moom xataay waxtu yi du mën a may ñu dugg ci lépp waaye lañ cee wax rek dana nekk loo xam ne xëy na képp ku ko dégg mën naa doon njariñ ci yow tawat jooju nag xam nañ ko bu baax. ñu ngi koy wax coronavirus wala sax ñu di ko wax Covid 19 muy ay tur yoo xam ne yëpp rek la muy tegtale mooy jenn tawat ji maanaam coronavirus ak Covid 19 lépp jenn tawar ji la rek tawat la joo xam ne sabab seeg li ko waral ak yooyu moom daanaka taxuta taxul mu am solo ndax xëy na yàlla suñu borom moom daanaka dañuy fexe ba lépp lu xew rek ñu ñu delloo ko ci suñu borom xam ne yàlla suñu borom moom mooy dogal di teg ay nattu nit ñi. ngir mën a ràññale ñi nga xam ne ñu ngi ci góorgóorlu ak ñi nga xam ne dañoo bàyyi seen loxo waaw ndax alif laam miim axasiba annaasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum laa yuftanun suñ borom dafa wax ne ndax nit ñi dañoo jàpp ne des na leen bàyyi rek ginnaaw bi ñu waxee gëm nañ te kenn du leen teg fitna fitna jooju muy tege dana tax mu mën a xam ñi nga xam ne ñooy tege ci yoon ak ñi nga xam ne teguñ ci yoon kon dañu fexe ba lépp lu xew rek ñu delluwaat ko suñu borom jàpp ne kat nattu la boo xam ne da koo teg jullit ñi te ko àdduna bépp waaw ngir mu xam ñi nga xam ne ñoo nekk ci njub wala fi ñi nga xam ne nekkuñ ci. taw ji nag bi mu doog a tàmbali ngi ko déggoon siin ak la ci nit ñi wax lépp la ja lañ jàpp ne moo ko sabab waaye bu dee loolu mën na si naa jàpp ne kon day mel ne sabab daa far mujj làmbaale ñëpp ndax ñoom dañoo jàppoon ne xëy na ay mbir moo sabab mbir yoo xam ne nit ñi xamoon nañ ko di ko wax. fekk jamono jooju tawat ji day a xew siin rek waaye jamono ji nga xam ne dem na ba làmbaale ju réew julli ñi ñëpp moom xanaa kenn dootul waxati ne lii kat nangam la woon waaw ala kulli xaal daanaka loolu du am solo dëgg-dëgg taxaw ci waaye lu mat a yeete la rek mooy ab jullit lu mën di ñëw wurut di sigire wala dara wala di ci ndo ndokk di ci ndokk kenn waaye dafa war a xam ne lépp lépp nattu suñu borom la rek boo xam ne da koy tege te musiba mu la sori sori sori na nga ñaan yàlla mucc ci yoo xam ne suñ muur bu sa jóg daan wax ne am musiba loo foo ko mën di dégg lum la sori na nga ñaan yàlla mucc ci ndax jamono jëm yi doo ko xew xëy na sori woon na fa mu nekkoon sori ne nit ñu bëri ñu ngi doon wax naan xëy na la ko waral mooy ñee lañ daan def nangam ak nangam boo xoolee dañ dem nañ ba rogalaan na jóge fa jàll feneen ak feneen fu dul foo xam ne ñoom kenn seen yoon ñëw ci fi kon li ko suñu borom digal mooy fu mu toll nay ñaan suñu borom ak ndax yàlla suñu borom kat moom dafa wax ne yow yonent bi saa bu la nit ñi laajee anama nee leen yàlla kat ku jege la koo xam ne ku ko ñaan ma nangu te yàlla suñu borom moom moo wax ne ñaan leen ma ma may leen te bi ma waxee ñaan leen ma may leen noonu la waxee ne ku ma ñaan dinaa ko nangul ak ñaan kon li nga xamee ne mooy saafara ci lu mel nii mooy julli bi delluwaat ci yàlla te ñaan ko te loolu dana ci gën a yàlla bu ñu egsee ci li ñu jàpp ne mooy ay solution maanaam tawal joo xam ne dafa xaw a yaatu di raafal ay nit yàgg naa am ci histoire nit nit maanaam nit ñi yàgg lañoo gis yu ay tawat yoo xam ne day ñëw raafal aw nit jàll ma moo xam man naa yàgg moo xam lu yàgg ñaan suñu borom ñi ñaan suñu borom tawat ji balaa yàgg mu teggi euh, jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mel noonu amoon na jamono yi ginnaaw ginnaaw yonent bi jamonoy Omar ba tey lu mel noonu amoon na ba nit ñi jëlee ci ay leçons yu am solo yoo xam ne ba jamono jii ñi tawat ji ñu nekk sax dañu faral di jëfandikoo leçons yooyu ngir am solo gi mu solo jullit bi wala nit lan moo war a doon taxawaayam ci lu mel ci bu tawat bi mel ni amee moo xam ci wàllu diineem la wala ci wàllu aadaam bu dee taxawaayam ci wàllu diineem moom wax nañ ko mooy ab jullit toujours lu xew daa war a delloowaat lépp suñu borom. tey ñaan yàlla suñu borom bu dee ay xéewal la mu sant ci bu dee safaan bi la mu ñaan suñu borom teggi ko ndax xam ne suñu borom moom moo mën a teggi yooyu bu dee mbir mbiram la mbiri aada nag lu mel ne dem ak dikk ak jooñ joog wala lu mel ne jëflante doomu aadama yi su boobaa moom doomu aadama li mu mën a def ci lu mel ni mooy moytu dong waaw moytu ndax kat moytu moom jëf la joo xam ne kenn du ko def ba pare di rëccu waaw ñàkk gëm mbir mi loo ko ñàkk gëm ñàkk gëm bu mu la tee moytu ndax moytu baax na lool ndax doo dégg ma ko digde damaa moytu ba far musiba mi tegu sama kaw kon nañ moytu bu baax a baax baax dañuy wax ne jamonoy Omar Omar ibnul Xataab nga xam ne mooy ñaareelu xalifa ginnaaw Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jamonoom amoon na tawat ju mag yoo xam ne daa amoon ci ab dëkk bi nga xamee ne Omar mooy ci jamono ji nga xam ne Omar mi ngi xeex ñi nga xam ne dañoo génnaatoon ci diina ji rek ginnaaw bi yonent bi saasam bàyyi ko bi fi bàyyi ko am na dëkk boo xam ne Omar dafa dafa jugoon jëm fa bi mu demee bay bëgg egg ca dëkk ba lu tawat ji tawat tawat ji doy waar amoon fa bi mu ba jub dëkk bi aw nit ne ko ah yow kat yaa ngi jëm ci dëkk boo xam ne dafa mel ne am mbas dafa am waaw léegi nag looy def ci la Omar woo ne wóolu leen ma muhaajiruuna yi nga xam ne ñoo ñoo jiitu woon maanaam maanaam ñi nga xam ne ñoo jóge woon màkk gàddaay si donte ñëpp ñëpp la waaye xëy na dafa gën a jagleen ñooñu ngir seen yàgg yonent bi ak yu mel noonu mu daal di diisoo ak ñoom bi mu diisoo ak ñoom ak waa ansaar ñëpp mbooloo mi xaaj ñaari xaaj ñii ne ko ah yow kat da ngaa génn rek te yàlla tax lu mel nii bu amee it wur wurta tax nga deltu ginnaaw da nga te ngaa continuer rek te xam ne yàlla lépp lépp yàlla la dugg ci dëkk bi rek loola fa dalit nga xam ne yàlla suñu borom moo ko dogal ñeneen ñoo ko ah déet ñun de liñ gis mooy nga bañ dugg ci lu mel nii ndax kat euh, mbas la te day mel ne yow boo ci duggee la ci fekk day mel ne yow yaa jël sa bopp dugal ko ci ci ci ci ci lu koy lor ginnaaw bi bi ñu defee diisoo ba pare ci la Omar daal di convaincre ci li nga xam ne ñi nga xam ne ñoo ko wax ne ko ah, te ngaa dellu dellu bañ a dugg bañ a dugg ci dëkk bi. ci la Omar dellu bi nga xamee ne Omar dem jël na décision dellu amoon na kuñ doon wax Abu Ubaydata al Jarrah Abu Ubayda kuñ xam na ci saxaaba yi Abu Ubayda fekk moo jiite woon aramu dëkk booba fa Omar jëmoon ci la Abu Ubayda waxoon Omar ne ko ah ndax da ngaa bëgg a daw dogalub yàlla li tax mu ne ko ndax da ngaa bëgg a daw dogalub yàlla mooy Omar mu ngi jóg jëm ci dëkk bi ñu ne ko dëkk bi feebar bu garaaw am na fa mu bëgg a dëpp kooku ne ko ndax dafa mel ne da daw ndogal suñu borom mu daan na ko nag déet Abu Ubayda dawuma dogal suñu borom ndax damaa daw jóge ci dogal suñu borom jëm ci dogal suñu borom rek waaw ndax kat lee dogal suñu borom la waaye bu ma fi bu ma moytoo dem fa ma jëmaati dogal suñu borom la kon loolu am solo la maanaam luñ luñ luñ lu mat a jàngal la te dana ci egsi bu soobee Yàlla bi nga xam ne wax na ko loolu gars yi wax wax uh, coowoo ci seen gis-gis yi ni ki noonu ku ñëw Abdurahman ibnu Awf ci saxaaba yi la bokkoon fekk dafa xawoon a sori bi mu gisee gars yi dégg gars yi di coow ak wax yooyu ci la ñëw daal ne lu mu demee ñu wax ko ni mu demee ak li nga xam ne moom la Omar nar ci deltu deltu deltu ginnaaw mu daal ne ah man sax de mas naa dégg ab xadis boo xam ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la jógee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ne bu ngeen dégg ab dëkk ñu ne maanaam lu mel ni xew na fa te fekk yéen duggagu leen fa bu leen fa dugg waaye bu bu fekkee yéen a fa bu leen génn na ngeen bi waxee loolu nag loolu tombeek li nga xam ne noonu la Omar def Omar sant yàlla ba xam ne yàlla dimbali na ko ba lim gis dëppoog li nga xam ne loolu yëpp saa sa ci yi loolu ab xew bu mag boo xam ne li tax ñu nettali nii mooy dañ cee bëgg sukkandiku génn ci ay leçons am solo bu njëkk mooy tawat ji bi nga xamee ne yaatu na lool bëri na lu ñuy wax ne dëkk sàngam la tax tawat ji fa mooy dañ ko fa yóbbu wala dëkk sàngam tëj na ay frontière am ba xam ne kenn dootu fa dugg kenn dootu fa génn yooyu yëpp di ay ay mbir yoo xam ne état yi dañ koy amalante seen diggante ngir ragal tawat ji moo xam na koy def dañ ci am na ci yoo xam ne dañ sukk dañoo jàpp ne mooy lislaam wala waaye lu ñu ci mën di doon daal li nga xam ne moom la diggale ci lu mel nii mooy dëkk bépp dëkk boo xam ne dafa am mbas te jullit ba nekk fa wërta génn dafa war a toog bu fekkee nekk gu fa waru faa dem yonent bi saasam dafa waxoon ne bu lu mel noonu amee bu leen génn ci dëkk bi mukk di daw génn bu leen génn di daw maanaam ngir daw ngir bañ ngir mucc ci tawat ji waaye bu fekkee dugg leen fa it bu leen fa dugg daw daw tawat loolu nag danga nga ciy déggee ne bu fekkoon da nga am yitte yoo xam ne faw nga génn loolu kenn wax ko lu mel ne tey da ngaa nekk ci ab dëkk tey la masalan tey la ajjuma yow nga nga nga jëloon décision ne ajjuma gëlee ñëwaat damay génn avant ajjuma gi ñëwaat mbas mi xew fa kooku kenn téréwu la nga génn waaw kenn téréwu la nga génn wala sax lu mel ni yow nga war a génn nga war a génn ngir maanaam lu munta ñàkk su boobaa faw nga génn moo tax ba xam ne dañoo wax ne génn googu yonent bi saasal waxoon ne bu leen génn génn gi dafa am ñetti xaaj génn goo xam ne da génn ngir daw tawat ji loolu kenn ñëpp dëppoo nañ ci ne dafa xaram maanaam sañ waroo ko def yonent bi saasam tëkkoon na ci sax ba ba nuróole ko kuy daw cib xare génn ñaareel gi mooy génn goo xam ne da ngaa génn ngir lu mu a ñàkk masalan tey da ngaa tukkoon ci dëkk war a dellu si avant ngay dellu si fartawar ji tombeeg ngay war a dellu su ko da si wala yu mel noonu boobu dëppoon nañ ci ne da ngay génn léegi nag li nga xam ne ca la wuute am mooy génnum ñetteel mooy dañuy wax ne nit ki nga xam ne dafa génn ngir ay yitte waaye yitte yooyu da cee da cee boole waare moytu moytuwaale comme masalan nit ki ne ah man kat naa jóge fii dem dëkk sàngam tawat ji amu fa sama sama sama sama maanaam sama waxtu jeex na waaye nag naa naa naa gaaw génnaale sax ndax wóor loolu ci la wuute gi am ñii ne wóor wóor jaaduwul ndax dañoo xool ne dafa daw ñii ne jaar na ndax dañoo xool ne donte dafa daw waaye dañ yeneen yitte ko loolu lépp ay wuute la rek waaye li am solo mooy intu saa génn gi mu tere mooy génn gi nga xamee ni li ko waral mooy daw maanaam daw tawat ji lan moo tax ban sew-sew moo nekk ci ñuy tere nit ki di génn borom yi nga xam ne baaxoo na noo gëstu ci sew-sew yi wala mbir mu nekk ñuy xool la tax la nekk ci ginnaaw na ibnu xajar al asqalaani ci fathul baari dafa wax ne bu ñu doon jàngal xadis bi bokk nañ ci li tax mën nañu wax ne bokk na ci li tax yonent bi saa sallam tere na bu kenn génn mooñ wala bu kenn dugg mooy ki génn bu génnee danaan ah man kat yàlla dogal la génn naa mucc naa ki dugg fa bu duggee dara dal ko danaa man kat dama faa dugg fa musiba mi dal nga xam ne kenn ku nekk day mel ne commencé naa jël sabab yi di ko wéer ci loo xam ne demeewul noonu fekk déedéet mbir mi ak ak yeneen noonu li tax mu tere dugg ga it gis nga day mel ni nit ki leer na ko ne lii tawatal fa bu fa duggee day mel ni dafa jël boppam sànni ko ci ak alkute te loolu lislaam da ko da koo tere waaw lislaam dafa tere nit ki di jël boppam di ko yóbbu ci loo xam ne da koy lor waaye nag bu dee lu mel ne nit ki dafa génn ngir lu munta ñàkk moom aajo ju munta ñàkk lu mel ne ab réew la dem tukki fa bis yañ ko may jeex mu war a ñibbisi kooka kenn sikk sàkk wut ci ne bu bis daleem jeexee day ñibbi ak yu mel noonu loolu moom kenn wuutewu ci ne terewuñ génn gi léegi nag am na yeneen atte yu xew yu xaw am solo mooy nit ki tey bu fekkoon dafa jóge ci dëkk dem ci beneen dëkk par yëg ne moom am na tawat ci su boobaa kooku li jaaru mooy moom dafa war a def dafa war a quarantaine boppam maanaam li ñuy wax la quarantaine alxaju alxajul sixi moom mooy moom ci jëmmi boppam dafa war a moytu bu fekkee ki dafa yor tawat joo xam ne da ciy lore moom ci jëmmi boppam dafa war a moytu jéem a lor nit ñi waaye bu fekkee ne leer na ko ne moom mi ngi ak tawat yoo xam ne day wàll mu mu jaxasoog nit ñi wàllu leen ko na ko leer na am na ci bàkkaar te kam wàll kooku ku mu wàllaan moom dana ci am bàkkaar ba bu wàllante gi lu mu gën a dem rek moom mi gën a am bàkkaar wàllante loolu tax lislaam sax dafa bëggoon ñaari nit su awee xeeti taw di mel noonu maam mu moytu mbooloo ajjuma wax nañ ne bokk na ci li koy li koy maanaam yonent bi saasam daana wax ne ci ci mbooloo julli mbooloo masalan daana tere ne képp koo xam ne lekk nga ci garab gii garab googu li mu jubloon mooy laaj laaj dafa am ak goo xam ne yonent bi saasam daana wax ne képp koo xam ne lekk nga ci garab gi bul jege suñu mbooloo bi loolu nag ci déggee mooy lor gi ngay lor nit ñi tax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam moytu loola nga jaxasoo nit ñi comme lu mel ne lu mel nii lu mel nii ñaare bu amee doomu aadama bi bu ko dalee itam yëg ko ci boppam dafa war a moytu te jokkoo li nga ñi nga xam ne ñoom ñooy yor lu mel nii euh, bu ko defee nag li nga xam ne jàpp nañ ne doomu aadama bu ci bu ci bu ci bu ci tënku yàlla suñ borom mën na laa dimbali donte waxuñ ne euh, lii may saafara si waaye jàpp nañ ne mën nga xaw a mucc mooy ñaari mbir la benn mbir mi mooy sabab yi nga xam ne day dellu ci sa diggante ak sa borom. sabab yi nga xam ne dellu na ci sa ci sa mbiri aada sa dund ak sa jëflante dañuy njëkkee yi nga xam ne day aju ci wàllu aada ba pare doogu ñëw ci yi nga xam ne day dox sa diggante sa aju ci wàllu aada tawat yu mel ni bu amee bokk na ci la nga war a njëkk def mooy yow moytu ba pare waaw am naag amut ak ay ay ay toppale laa wér naa wéru yooyu yëpp bu la tee moytu waaw bu la tee moytu ndax kat buñ ne laa nangam loo xam ne wóorut ñu ne la mi ngi ñëw wala nangam yow la nga war a jëkk def mooy jëlal say matukaay ba pare boo dee ba gisoo ko nag wala dem ba ba wér na ne amutoon mën ngaa wax ne amutoon waaye nag boo boo yàccaaralee taxaw naan amut ne nit ñi nga xam ne ñoom daanaka dañuy dañuy déglu ko lu ñu dégg ci mbenn mi rek gëm ko mën nañu romb benn waay bu taxaw fee daan ne feebaru amut ñu gëm lool duñu fàgga loolu wóorut parce que taw tawat ji wax nañ ni muy wàllee yow xam nga ni muy wàllee kon léegi yow la la war sa digg la la war sa diggante ak moo sa nit ñi mooy nga moytu moytu leen sa diggante sa euh, maanaam nga loor nga nga leen waaye moytu ñoom ñu wàll la waaw moytu ñu wàll la ba ca njëkk mooy bu fekkee ne wax nañ ne masalan ab jonjoo da koy waral ah te yow jonjoo bi gisoo ci lor maanaam mënoo ko man nekkul loo xam ne da boo ko def da ngay lor wala nga moytu ko wax nañ ne saafante da koy waral. masalan tey bu fekkee da ngaa saafonte ku ko am ah te saafonte du farata nga moytu ko waaw ndax saafonte dañ koo sopp rek nuyoo moom salaamaaleykum waaleykum salaam doy na ci sëkk waaw waaw bokk na ci it yow jëmmi yow eh, ngay nga protéger sa bopp protéger sa bopp mooy eh, la eh, nit masalan mi ngi mi ngi ci sóoli wala mi ngi saqat wala mi ngi def na tam te nga ragal yow xam nga ragal ci nga moytu moom it mu moytu ak ak yeneen yeneen yoo xam ne daa naka docteur yi wax nañ ci lu bëree bëri yoo xam ne daanaka aajowoo ñu ci xuus waaye doomu aadama yi nga xam ne bu ko defee dana ko dana ko dimbale bokk na ci moytu bu baax a baax ba ci desin mooy muy saafara ci saafara si nga xam ne yonent bi saasam daana ko digle ak saafara yi nga xam ne médecins yi nañ ko digle surtout pajum cosaan mi rawatina donte yooyu waxuñ ne day faj ko euh, euh, da koy faj waaye dana tax doomu aadama bi kii yëm yi nekk ci biir organes yi ak yi ne ci biir gën a amaat ak dëgër gën a muccaat ci ayib ba tax yu mel noonu bu duggee mën naa jaamaarloog moom ba moytu moytuloo ko ci lu bëri bokk na ci di naan lem rawatina boo xëyee ak di naan limon boobu lu baax la ci surtout li ñuy wax almanaa li ne ci biir lu waar nga xam ne mooy moytu li nga xam ne mooy dégager mooy jaamaarloo xeeti virus yu mel noonu yooyu lekk yi nga xam ne da koy dëgëral ba tax mu gën a mën a jaamaarloo yooyu yooyu man naa mën naa fonk waaw naa fonk baax bokk na ca moytu lekk bu bëri wax dañu wax ne jamono ji bokk na ci tawat tawat yi bokk na ci li koy moytoo moytu looy regg lu bëri foo toll rek di loolu baaxut ndax loolu sax baaxutoon lu jiitu tawat yi waaye day tax sa yenn ci sa cër yi ni sa biir xaw a xaw a faible te loolu bu waree bu amee xëy na mel ni da lay yomba song song bokk na ci set di sotti bu baax a baax ndax dana tax sa put gi set te set googu mu set dana la muccal ci yenn microbe yi taq foofu waaw bokk na ci taqoo am jàpp bu baax a baax maanaam fexe ba foo toll di jàpp ndax loolu dana la musal ci xeet yu bëree bëree bëree bëri euh, bu dee nag yi nga xam ne moo aju sa diggante sa borom bëri na daanaka mooy delluwaat si yàlla bu baax di ñaan te bëril ak ak jéggalu bëri looy sàbbaal sa borom ndax imam Shaafi radiyallahu wax na ne gisuma lu mën a yëkkati balaa lu mel ne subhanallah waaw nee na am musiba bu tegoo ngay wax subhanallah lu ko gën a gaaw ci yëkkati balaa gisuma ko subhanallah subhanallah sell subhanallah wa bihamdihi ak yu mel noonu ak jéggalu ndax kat doomu aadama moom suñu borom maam yàlla amul benn intérêt ci jàpp nit ki di ko teg ay fitna ak yooyu waaye nit ki na xam ne lépp loo xam ne tegoon na ci kawam rek moom lu mu teg boppam la léegi nag lu mel noonu bu amee li am xel mooy moom mu jéggalu boromam mu jéggalu boromam gën a gën a delluwaat ca moom ndax yàlla mu kenn waru waaye gën a delluwaat ca moom hmm, gën a nafaraat boppam digganteem ak boromam gën a nafaraat boppam àq yi mu amante eh, doomu aadama yi ah, gën a gën a fonkaat jaamu yàlla bu baax a baax gën a moytu ay moy lu mu man gën fonk nag ñaan yi surtout euh, ñaan yi nga xam ne sax na ci yu mel nii ah nga xam ne yéen bi saa da ciy ñaan mucc ci ay fitna ak lori adduna ak àllaaxira ak yëpp rek mu fonk fonk yi tegtal yi nga xam ne gaa yu baax yi ñu ngi koy digle rawatina xasida yi nga xam ne euh, Sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu daana ko dàqe mbas daana digle ñu di ko jàng lu ci mel ni xasida bismillahi rahmaani wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu fa hadihi l abi fa haakum hadihi l abiyata shifa min kulli dain wa xisnan xasinan min makaayidi jamil hada ak mooy yaa rabbi bil mustafa muxtaar min dal ak xasida lu mel ni wa kaana xaqan xisnul abraar xisnul abraar moom boo ko liiree waxuma la waxuma la waxuma la dara waaye bëri na ay ñaan yu yu ma gis jamono jii ñu di ko joxe ci ci coronavirus bi waaye boo liiree xisnul abraar bëri na yu ci nekk bokk na ci lu ci mel ne bismillahi lasi laa yadur ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis na ñu koy joxe di ko maa ngi ci ma waxoon léegi ah. ak yu bëree bëri ñaan yu bëri yoo xam ne ñaan la yu wér yoo xam ne boo ko yow boo boo déggee dara ci arab boo ko dee jàngale da nga xam ne lii mën naa musal nit ki ci lu ne te dégg li dégg nañ bu baax li ci sëñ Abdourahman wax ne sëñ bu wax sëñ mag waxoon na ne ku ku ku saxal saxoo di ko jàng asamaan ak suuf buñ buñ buñ dajaloo woon sax yàlla suñu borom da la sàkkal as poqus soo mën a làqatu ba mucc kon yaakaar naa mat naa gën a fonk baax a baax bokk na ci tey jii la bisub ajuma euh, ni wala masalan tey yow yaa ngi ci bisub ajuma nga gën a fonk ndax am na waxtu woo xam ne ci ajuma kat képp ku ci ñaan yàlla suñu borom mu nangu ko nga fexe ba bis bépp nga nga jeexal ko ci ak ak jaamu yàlla ak di ñaan yàlla suñu borom yëkkati tismi ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon na ne ab dogal bu suñ borom dogal lenn dong moo ko mën a yëkkati mooy ñaan yàlla lim dogal moom lenn dong moo mën a yëkkati mooy ñaan suñ borom te ñaan fi ñu ko gën a yaakaar yaakaare mooy bërëb yi nga xam ne moo gën a tedd lu ci mel ni jumaa yeeg jàkka yeeg bërëb bi gaa yi baax kon jàpp nañ ne wax waxi tëj jàkka yi moom ak yu mel noonu dëgg la lislaam bu lor eggee fii moom bu lor eggee foofu digal na yu mel noonu waaye nag nañ ko nañ ko boole ci yi ñu mujj a tëj ndax kat wax nañ ne même yu mel ni bu masaan am sax ña fi nekkoon bu njëkk luñ masaan a tere jaxasoo bi jaxasoo bi moom dañ daan bàyyi mag ñi ñu daan dajee di jàng alxuraan di ñaan balaa bi parce que ñun ñëpp ay jullit lañ waaw ñëpp ay jullit lañ te ab jullit amul lenn lu dul ñaan yonent bi saa wax na ne addu'a silaaxul mu'min ñaan. mooy ngànnaayal ab jullit ab jullit nag bu bàyyee ngànnaayam ah loolu de moom musiba mënu ko weesu musiba mënu ko weesu waaye nag teewut lislaam moom jamono ji fi ñu toll am na mbir mi foo xam ne bu fa eggee moom nit ñi war nañoo bàyyi dajaloo bi ak julli man wàcc na nit ñi julli julli ci àjjuma te yàlla buñ fa egg waaye jàpp nañu ay jumaake jàkk moom war naa bokk ci li ñuy mujjee tëj nga xam ndax bërëb la boo xam ne nit ñi buñ jaaxle fa la ñuy dajee di jaamu yàlla buñ ko boole ci njëkk tey rek musiba da mën mën noo dem rawatina sax tere jàng alxuraan comme ni ma déggee kenn ci am ko ko wax ci ñenn ci nit état bi ne dañ tere dajeeloo di jàng alxuraan loolu musiba la ndax nit ñi buñ jaaxlee dañuy dajaloo jàng alxuraan kenn kenn ku ne gis na ne yàgg na soxla ndox ba tàyyi dajaloo jàng alxuraan ca bis ba mu taw lu ñu mel léegi nag bu ñu nee nit ki bu mu dajaloo te jàng alxuraan loolu fan lañ jëm ñun fuñ fuñ jëm kon waaw ñun dañuy jàpp ci sabab yi maanaam dañuy sabablu pare nag waaye teewut ci yàlla rek la ñuy wakkil sabab yi mooy médecins yi li ñu wax li ñu digle doomu aadama yi nañ ko nañ ko wàccoo mooy nañ raxas seen loxo yi ba mu set wicc te te te loolu daanaka sunliwut ab saabu mën nga ko yor teg ko sa wetu robinet wala dara saa soo jugee ci wan way raxasu l'islam dafa yàgg digle loolu l'islam dafa digle woon ñaare sax ku mësaan génn ci wana sopp nañ nga raxas say loxo bokk na ci Euh, produit yi nga xam ne état dina ko digle am na ñoo xam ne am na pàccal boo xam ne fa nii xew na nit ñi fu ñu toll ñu ngi koy diw seen loxo yi muy rey ay ay ay ay microbe ba tey yu mel ak yu mel noonu donte léeg-léeg nga gis ku ci ëppal koo xam ne fu mu toll da koy pàccal rek te loolu docteur yi wax nañ ne ëppal ci baaxut ndax li mu la mën a jural mooy sa loxo yi am na lu ñuy wax ci li ñuy wax almanaa maanaam li ne ci sa loxo yi organes yi nga xam ne mooy mooy dégager mooy mooy mooy jaamaarloo ay virus yi mën a jaar. pajal bi boo ko dee utiliser lu bëri mën naa dem ba rey loola mën naa dem ba egg foo xam ne yow feebar bi sax mën naa far jaare ci sa loxo yi maanaam lu jaar sa loxo yi moom pour mu dugg ci sa biir jàll day yomb ndax microbe bu jàpp ne boo boo xoolee sa loxo bi mu set rek amul microbe microbe nekkul loo mën a gis ak bët yow li nga mën a def mooy wàccoo ak ndigali médecin yi ndax yow kat boo jaaxlee ci sa wér wàllu wér gi ñoom ngay jox sa bopp comme ñoom bu ñu ne laa defal nangam na nga def boo ko defee da nga noppal sa bopp noppal leen te bañ a génn lu dul lor boobu ay yitt nga maytu jaxasoo bi ndax nekkul loo xam ne yow dañ la ko dañ ko farataal ci yow foo toll da maytu maytu moytu gi dafa laaj nga moytu dem beeg dikki beeg jaxasoo ba ba ba ba yàlla di génn maanaam di di indi eh, ak faraj asallahu ay asallahu ay yatiya bil fatih aw amri min indihi ala kulli xadaat ci gàttal yi nga xam ne mën nañ ko wax ci tomb bi bari na trop Euh, waaye lépp rek nañ xam ne balaa la comme balaa yi fi daan jaar li am solo mooy doomu aadama bi fu mu toll digganteem ma boromam na na sax na dëgër loolu rek moo am solo fexe ba booy jaa booy dellu ci sa borom euh, nga nekk ci nin ko bëgg àdduna moom kenn du fa sax euh, li borom xa waykat boo waxoon rek kullu xayin laaqil ximaami fa muudi maa xayin mu amalu min xuludi laa tahaabul manuunu shay'an wala tara ala walidin wala mawludin waaw loo yàgg ci àdduna yàgg ci àdduna da nga fiy jóge boo fi jógul tey da nga fiy jóge kon ay tiit ci tawaat ba tax nga saalit loolu baaxut sukkandiku ci sabab yi ba fàtte yàlla it baaxut waaye boo sukkandikoo boo boo gëmee yàlla it da ngay sukkandiku ci sabab yi ndax yàlla moo sabab ay sabab ak mbir yooyu euh, ala kulli xaal insha allahu taala danañ ci ñëwaat ci beneen émission incha allah eggale ndax waxtu yu xam na te li ñu war a wax bëri na wa axiru daawana an alhamdulilahi rabil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabihi alkarim wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh